suñu candidat ki nga xamni mo amone le meilleur bilan le meilleur profil ki nga xamni mo moo daloon xelu Sénégal ki nga xamone jamm gi nek war réew mi soxla ci ay loxom la nek mu yor ko pendant 7 ans Sénégal nek ci stabilité bailleurs de fonds yi am confiance ci mom classe politique bi da daa nek dans des dispositions de compétition mu organiser des des élections yo xamni même les observateurs internationaux nay Sénégal élections yi déroulé nañu bien que pendant trop longtemps opposition un rôle ministre de l'Intérieur, organisé, président de la République organiser élection transparence donc président de la na président de la République mais cadre boy des nous avons ci confusion parce que nous ngi dem ci remaniement ministériel parce que jóge nañ ci lo xamni ñu ko considérer comme défaite ñu bëgg jël benn yëkk ko xamni ni yëkk responsabilité moom la manipuler gëna information fausse à travers la presse di monter ay nit di lo ay nit di activer ay réseau parce que kenn mo leen gêné won am fulla ci boppam nak kenn le mo nekkoon gêné leen président jox ko teranga mu ne man teranga yi ma jox dama koy delluwaat ci askan bi xale yi sonn nañ ci président ànd nañ moom alternance amuñu liggéey na la wutal liggéey dëkk bi xawna metti sur plan social na taxaw ni koku moy le directeur général Fos Siré génne len dans le trajectoire nekkoon ci élection yi sonn ci pendant trois ans il a travaillé au démantèlement du régime. pendant trois ans il a travaillé à élargir base président à le rassurer élection législative ñëw mu nekk tête de liste doon ci jàmbaar nag pour la première fois Thiès département bi ñu gañe ko loo xam ni ne Abdoulaye Wade tànte na ko ak ay ministre ministre des finances ministre de l' nationale ak yeneen directeurs généraux ak implication ay chefs religieux gañewu ko si Dia ñoo gañe département mais ce que nu ñu constaté moom ba mu gañe département ba léegi si ba la ko def parce que dama am ñoo xam ni dama dem ci président commune ville de Thiès ñu leen yobale ñu leen yobale amul njëriñ amul enjeu donc ñun ñom ñun ñu ñoo leen mënoo gagner lo enjeu bi département bi la mais dans le département il y' a combien de responsables nombre ay nombre tang jox ay nit alors que lolu enjeu principal bi ci ville bi la parce que ville bi ci la Idrissa Seck nek di gagné élection depuis 2002 gagné maire yi ba léegi def ay investissement dans le cadre du chantier de Thiès donc nekk koo xam ne Thiès dañu jàppoon ki da dana nek ren président de la République donc vote vote bi am élection présidentielle du vote défiance à l'endroit de la majorité mais c'est un vote affectif parce que Thiès yu bëri yu ñu jàpp ni. Idriss le moment est venu pour un so parce qu'il avait l'avantage après le parrainage mu nek ben candidat so ñu ne ko jàppale. donc ñun koko lañ doon jakar lool di xex ak mom ba pare di xex ak ñeneen avait en face de lui et Idriss et sa grande coalition, mais il avait en face de lui des responsables. Leur objectif, c'est que nous ville par un transfert d'électeurs pour vous alléguer, vous n'êtes président, à responsable de sanctionner, sanctionner la ville de Thiès. Nangul sen nombal tang. Nous, nombal tangu Sireja. Nangul bu Maodo Mali, nangul Nous, bu Ndey Tika Ndiaye, nangul ñeneen ak ñeneen parce que nous ñoo leen pas. Ce C'est pas vrai. On ne va pas accepter que demain dans les instances de décision ay nit ñoo xam ni ils ne parlent pas ils sont contre les intérêts de Thiès ñoo xeex jour meeting bi ne Siré Dia wax président intervenir ñu ne Ndeye Tické Ndiaye pas mu wax ñu mu mois de juin ñu jël benn femme boo xam ne kenn jox ko parole ces gens là c'est des ennemis de Thiès c'est des gens qui rament à contre-courant des intérêts de Thiès nous ferons face en tout cas pour remettre les pendules à l'heure de la vérité parce que dañu ko wax dëgg dañu wax dëgg Thiès xeex bu mag bi ñun ñoo ko yoroon franchement ñëpp acteurs yëpp nañ mais il faut reconnaître l'engagement personnel de nous lui témoigner notre soutien notre solidarité parce que nous, bu sommes pas di pour le président parce que benn crime rek la commettre mooy jàppale xale yi taxaw population yi nekk loyal loyal et fidèle au président de la République